jërë ngeen jëf mbokki internet yi parti bu Serigne Moustapha si nag euh, di PUR parti de l'unité et di rassemblement dal di nay nag fësal turu ki nga xam ne moo nar a nekk seenu candidat ci présidentielle yu 25 février 2024 loole nag mënees na jàpp ne ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane yum des ko zappe jamono boo xam ne nag moom parti de l'unité di rassemblement boobee bu Serigne Moustapha Sy ñëpp doon xaar kandidaawam ñoom nag daal di nañu fësal tur ba ci jamono joo xam ne sax xalaat yëpp daanaka jubali woon ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmed Tidiane Youm bi nga xam ne nag mooy teewal Serigne Moustapha Sy boobe ci parti bi wala sax bu parti bi eh, ci li nga xam ne nag moo di conférence de leaders yu coalition Yewwi Askan bi Euh, partie bi nag daal dinay tànn ki nga xam ne mu ngi wéy ci turu Aliou Mamadou Diop ngir nag li nga xam ne moo di parrainage yu élection yu présidentielle euh, élection présidentielle yu 2024 loole des ko nangoo ca naataango yi nekk ca site bi di Dakar Actu ci fàttali nag ci gàmm gi nga xam ne des ko génn fan yi lañu fan yu néew euh, foofee ci champ de course bu Tivaouane moom nag marabu bi di Serigne Moustapha Sy daal di xam le ci ni nga xam ne ñoom la ko ñu bëri doon xaare wala doon yaakaare doon ko sàkku ci moom moom nag nee na daal daanaka candidature nekkul loo xam ne intéressé na ko jamono jile ndax nag taxawaayam ak tolluwaayam ak lu bëri lu ñuy xaar ci moom dem jàpp ne daanaka ñaar yëpp du ko di mëne loole nag tax ba mu xamal taalibe yeeg ñi nga xam ne rawatina sax ñoo di militants ak sympathisants yu parti boobee du pire ke nag bu jotee rek dinañu xamle ana kan mooy nekk candidat wu parti boobee di pire ci présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci atum 2024 loolee daal mooy kàddu yi nga xam ne moom mi xam xamle woon na ko di Serigne Moustapha Sy gannaaw nag bu mu ci génnee boppam ba mu set des xaarandi fan waanenti di bu jekki gëtam waaye daal bu ñu sukkandikoo ci nattaam gi nekk ci dakaar Actu li nga xam ne nag mooy tur bi jip ngir nag parrainage yu élection présidentielle yu 2024 moo di kii di Alioune Mamadou Dia jërë ngeen jëf mbokki internet li moo nekkoon xibaar yi jëm ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu calande Eh, laata loolu fooy leen di laaj ak di ci seen chaîne ku déggan ci page bi te abonné gu ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee lu nu dugal ci vidéo nga bokk ci ñu koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen 14 régions du Sénégal foo leen nekk diaspora bi kenn demul ngeen des eh, ñu ngi leen di sant leen gërëm ci teewlu beeg taataan xibaar yi di wax ne rek képp kuy gan ci bi te abonné gu ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee lu ñu dugg ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk jot xibaar yi des leen ko toppal nu gën a gaawee rek ñu leen ko di euh, joxe parti de l'unité et du rassemblement bu Serigne Moustapha Sy de Sall ni fan la wana tirim bu jee ki gëtam ak naka la ñu taxawee ci présidentielle yu vingt 25 février 2024 fii ci réewum Sénégal.